صلاة الذي في كل بسار وفي سفر iqtidaa'i wa arju andahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawi nawali wali assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokki jullit yëpp te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo ba ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te guddaloo fanam te may ku wér ba li mu yéene liggéeyal na Ahmadul Khadim lépp mu mottale ko tan weeru safar wi nga xam ne ci lañ dugg di képp koo xam ne mbëggam sëriñ bi sëmb ci sëmb màgg bi nga xam ne moom la woote la woote woon ngir ñu santale ko ci yàlla boroomam ci biir cant googu nag ak bis màgg boobu ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi mu fiy jóge woon dem ci liggéey yonante bi sallallahu alayhi alihi wa sallam mu ci sant yàlla di ci e, tagg di ko ci tagg ak daan ko liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digal képp koo xam ne mbégam sa mbég la bu bis bi agsee nga santale ko ci boroomam bis boobu ñuy waajal nag tey jii di fukki fan ci weeru safar démb la juróom-ñeenteelu fanum ci lañ tàmbali woon jotaay yi nga xam ne daayira muqaddamatul xidma moo koy amal ngir di ci jàngat njàngalem Seex na Ahmadul Xadim eh, di ko ci fàttaliku ngir nit ñi gën a xam le ak am njàngaleem ak lam doon yore mag ñi fukkeelu bii nag tey di ñaareelu jotaay ci jotaay yi nga xam ne moom la daayira muqaddamatul xidma tànn ngir di ci fàttalante ak julli ak murid yi eh, njàngaleem Seexna Ahmadal Xadim tey jii ñu war a jàngat xasida yaasal busharati bil ayati wa suwari muy xasida goo xam ne eh, yëngu ci xasida yi xam nañ ne bokk na ci xasida yi nga xam ne moom la Seexna Ahmadal Xadim xaadalahu laa maxtaara lahu bind ci géej bi mooy ci tukki bi eh, xasida googu nag di xasida goo xam ne gu làmboo ay mbir lay tomb yu bari ci biir xasida gi ak ni ko sëriñ bi taalifee muy xasida gu am solo xasida yépp am solo jàngat gi nag tey ñu si ànd ak suñu mbokk suñu sëriñ e, sëriñ Basiiru Touré e, yaakaar naa ñu bari xam nañ ko buñ gisee jëmm ji rek wala ñu dégg kàddu gi e, muy war a waxtaan ci xasida yi du nekk lu lu yéeme ndax yàgg nañ koo xam ci waxtaanee xaside yi euh, ci ci yàgg jamono yàgg yàgg yàgg di ci koo xam ne ku ci xereñ la ci ku ciy def ay gëstu yu am solo la nit ñi di ko jëriñoo jullit ñi ak taalibe yi xam naa ngir bañ a guddal dana danañu ñëwal ci xasida gi kañ la ko sëriñ bi taalif ak fan la ko taalifee ak lan moo waral mu taalif ko Euh, dana ñëw tamit ci biir xasida gi bu ci duggee danañu leeral xam nañ ne xasida gi euh, ci koor la woon euh, dana wax kon sëriñ bi ak koor ni mu ko jàngate ci biir xasida gi ci biir xasida gi tamit sëriñ bi wax na ci lu tudd ci laaju ci tuub loo tamit nee na dana ñëw ci leeral ko faram ko ak cant gi nga xam ne moom la sëriñ bi woote ci fan ak juróom-ñett bi nga xam ne moom nañuy ñuy waajal cant googu nan la ko sëriñ bi jottalikoo ci biir xasida gi euh, ak xam nañ ne tamit ñaan ñaan tamit am ñëw na ci xasida gi dana ci sëriñ bi dana sëñ Basiru Ture danañ ci ñëwal danañ ñëwal tamit tawxiid mooy wéetal yàlla gi nga xam ne sëriñ bi ci la nekkoon ci la doon wootee ci la doon moom la doon jàngale nan la ko sëriñ bi jottali ko ci biir xasida gi dem dina ci ñëw bu noppee loolu lépp tey dana ko dana jël wax ci wàllu luxa mooy làkku arab yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi waaye ci wàllu badiyam muhassanaat lafziya ak maanawiya mooy baat yi maanaa yi ñu amee ak rafet gi rafet ak sëriñ bi tànn gi ko tànn euh, loolu dina ci ñëw leeral ko bu ko nag bu ko defee tamit mu door a tëj ab xaatima boo xam ne dana ci tëje waxtaan wi ñu koy ñaana suñu borom defal ko ak im bi fecc aw làmmiñam ba li mu yéenee leeral suñu borom defal defal ko ci jàpp jàppandal ba ñëpp mën koo jëriñoo euh, suñu borom defal ñu ci tawfiix kon dañuy bàyyi kàddu bi ak sëriñ Bassirou ture moom nag imaam la jàngalekat la euh, kuy faral di def ay waxtaan ay jotaay rawatina ci xaside yi kon kooku du ku ñuy présenté xam nañ ko fii muy sëtëb Cheikh Abdoul Ahad Euh, kon sëriñ bi bisimilah. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi allama bilqalam allama alinsana ma lam yaalam walsalaatu walsalaamu ala man unsila alayhi iqrax bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqrax wa rabbuka al akram maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sun borom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla yàlla mi nga xamee ne moo xamle te jaare ko ci xalima xamal nit lu mu xamutoon waaye maa ngi julli di sëlmal ci ki nga xam ne ci moom la sun borom wàcce jàngal ci sa turu borom mi nga xam ne moo bind moo bind doomu aadama ci lumbu deret jàngal sa borom may aji tedd ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp nuyoob islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nu am mbégte nag tey teew fii ak waa daairatu muqaddamatul xidma nu fas yéenee waxtaane xasiida gu màgg di xasiida yaadal bushaaraati bil ayaati wa suwar mu bokk ci xasida yi géej gi moom nag xasida gi sëriñ bi mi ngi ko def ci bahrul basit sëñ bi tamit mi ngi ko way ci tukkib géej gi bi mu nekkee ci géej gi ci la ko sëñ bi way sëñ bi bi nga ko way ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom sëñ bi tamit mi ngi ko wayoon ngir tàggatoo ak weeru koor nga xam ne bisub talaata la woon kon xasida gi nag mooy mbokkum xaroo xasida yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ndax yaa xayra dayfin sëñ bi da ko way bisub altine ñu ne taafeer tey la benn fan ci weeru koor bisub talaata weer wi feeñ di korite sëriñ bi defar yaatal bu saaraat ngir tàggatoo ko ak weer wi kon bi sëriñ bi demee ci géej gi ci atum jay sasin ñetteelu koor ga ko fekk ci la sëriñ bi defar xasiida gi ngir di ci tàggatoo ak weer wu barkeel wii di ci deyaale ak boroomam di reconnaître nekk gi mu nekk jaamub yàlla di tuubal yàlla tut gu sell la xam ngeen nag xasiiday géej gi dafa am lu ñu ràññikoo dafa am lu ñu leen xàmmee dafa am dañoo am seen madd mënu bopp xam nga alxaybatul bahriya moom mooy samaaniya xijajin ila qalila waaye bu dee alxasaidul bahriya moom sëñ bi bu koy taxbir ci xasrata awaam xasratu lay wax tàmbalee ko ci jaysasin ba ci mujjantaluk baksashin fukki at yooyu la sëñ bi wax ne mooy xasiida yi géej gi ñoom nag seen mat mun sëñ bi moo ko waxal boppam sëñ bi nee na mbooleem ñi aju ci man nañu xam ne man sëñ Tuubaa jubale naa jublu naa ci yàlla ci ay taalif yoo xam ne def naa ci njariñal gulit julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi àddina ak alaxira te mbooleem li ma bind ci géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaad kon xasida géej goo gis rek tudd yàlla sant yàlla jihaad liggéeyal yonent bi ci di ko tagg ci julli ci moom moo gis nga moo tax nga gis xasiday géej gi ci bari di xasiday di kar diwaanu fulk yi ci nekk yëpp xasiday di kar la bu dee sukkuru gi nekk nag ci xasiday géej gi dafa wuutee ak sukkuru gi nekk ci xasiday ginnaaw géej gi bu dee xasiday géej gi xasida yi ci gis yëpp muy xasiday cant mooy ak cantuk ak sukkuru ala ma yusbiru alayhi yàlla teg la natt nga muñ nattu ga muñ gu rafet gërëm yàlla ba noppi nag ànd nag ànd di sant ci nattu bi moo tax nga gis ci biir xasiiday géej gi sëñ bi naan sintul xasaida lil wahaabi askuruhu biha wali xaada ma faaxa kulla masnooni moo tax nga gis mu naan sintul xasaida fiikum shakira biha lakum waaji olil kasfa wal moo tax mu ne at na ma naasib fi sukurillahi taala bi xidmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi xasaidihi lbahriyat moo tax xasiiday géej gi yi ciy xasiiday cant asiroog rum naag ala ina néeg ñoom ñëpp ak ba ci yaatal bu saaraat mooy cantuk assukru ala ma yusbiru alayhi kon xasiiday géej gi moom itam xasiiday jihaad la sëñ bi wax na ko jaaxattu fi lbahri lazina sallasoo wa man tasaddaqoo wa man tasalsaloo wax na ko sintul xasaaida awaaman mujaahada liman bihi bixtu kax mastuura wax na ko am na xasiid ak laysul birru sëñ bi naan haadihi xasiidatun bihaa jaadaltu ahlal kitaab wa bihaa xaataltu kon xasiday géej gi jihaab la làmboo waaye tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci yonent bi daa bokk ci mat moonu xasaaidil bahriya kon moom itam yu bare bare li ci sëñ bi def teyit xasiday géej gi goo xool loola man ca tagg yonent bi julli ci moom delloo yàlla njukkal waaye ba tey bokk na ci xasiiday géej gi man moom bi muy xasiiday yooyu tawxiid la wéetal sunu borom la te loolu danañ ci ñëw nga xam ne yooyu yëpp sëriñ bi da koo dakoo da koo defaree ci secret qul huwa allahu ahad li mu wax sintu bi sirri qul huwa allahu ahad xasaida tawxidi inda man jaat kon xasida yaatal bu saaraati ci xasida yi géej yooyu la wax moo tax yooy ci ne te mooy mat moomu xasaydu bahriya moo nekk ci biir xasida yaatal bu saaraati sant yàlla delloo yàlla njukkal tudd yàlla wéetal yàlla jihaad xasida gi nag am na bis sëriñ bi génn dajeek nit ñi am kum woo koo xam daa baaxa daa aada woon di jàng xasida bu sëñ bi génnee ñu di ko wax Mahmoud Fall sëriñ bi diggal ko mu jàng xasida ak yaa xayra dayfin ba mu ko jàngee ba àggal sëñ bi ne ko jàngal mbokkum xarom ma kon sëñ bi moo wax ne yaa xayra dayfin ak yaasal bu saarat ñoom ñaar ay saqiqa lañ mu jàng ko ba àggal bi mu àggalee sëñ bi ne ko innahuma min al bahriyaat ñaari xaside yi ñu ngi bokk ci xaside yi géej gi daan ne bu njëkk ba maa ngi ko wax biñ ne taafeer feeñ na muy yaaxeer dafin bu ñaareel bi maa ngi ko wax bi nga xamee ne weeru koor wi jeex na sëñ bi ne ko nag waaye diggante fi may woyee yaa xayra dayfin ñu ne taafeer weeru koor ak si may wayee yaa dal bu saaraati diggante ñaari yaay yooyu muy weeru koor bu mat sëkk woo xam ne ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent sëñ bi nee na gisoo fi sama bët luñ togg ci diir diir boobu nga xam ne sëñ bi weeru koor bu métti la woon weer woowu mu ne nag wa haza sayun xalil mimma tadamatu albahriyat lii nag lu néew la ci xasida yi géej gi bu nu demee ci minul baaxul xadim bu cheikh Mouhamadul Bachir radiyallahu anhu nee na cheikhul xadim radiyallahu anhu weeru koor da koo fekk ci ma yomba ci jazira bu lëndëm boobu mu nekk ci loxoy ay noonam yorul dara lu dul ay téere tumuranke lool ñàkk lool weeru olof yi sax du ko xam lu dul euh, doon sukkandiku ci di ko bind ndax foofa lislaam dafa tumuranke lool nee na weeru koor wu ñëw nag sëñ bi yorul dara lu dul payoor bañ koy jox tubaab yi te sëñ bi lu njëkk loola moom diiru ba xeloo rek buur yi seen alal yeeg seen yëpp daawu ci jariñu rawatina kon loolu di jóge ci tubaab bi dafoo koo defoon ngir ak sàmm sëñ bi weer wooru weer bi ba weer bi jeex bu dog jotee ndox rek la sëñ bi di dogee walla mu jël xobu garab mujj ko ndox moomu jàll ngir la ngir jëfe su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diggante boobu ci circonstance yooyu ci weeru kooru tar woowu ci la sëñ bi di bëggee ci weeru koor ñëw gim ñëw ba di ko mel ne ko yaay gën gi gan gan goo xam da ngaa dikk indaale mbégte ak melat di ko ñaanal mu agsi ak jàmm di tagg weer wi ne ko yow weer wu màgg nga ci sunu borom wu màgg nga ci borom xam-xam yi ak ñu jub waaye bi weeru koor jeexee nag la sëriñ bi radiyallahu taala anhu di tàggatoog weer wi ci xasiid ak yaadal busaaraat yi bil ayaat yi wa suuri nga xam ne mi ngi ñaan walla mi ngi wax suñu borom seeral ko ne moom wala weeru koor wi seeral ko ne moom jaamu yàlla la bu amul xis ngir mu seeral ko ak tuubam mi ngi naan ko doxal jëm ci suñu borom bi nga xam ne amul bokkaale ci al mulk ci nguuram ak cant mooy borom nit ñi mooy borom jinne yi mi naan ko yow weeru koor mosoo dañ di gan gu tedd gan gu may bégal ci lu feeñ ak ci lu nëbb Cheikh Mouhamadou Basir nee na ci ñaari xasidi yii darañ ci xamee sëñ bi ak dëggoom ci yàlla ak bëggam gu dëggu ci sun borom ak cofeelam ak sukkandikoom ci yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye danañ ci xamee tamit moom itam munaajaat yi mu doon def ak boroomam ak di sàkku nag ci weer wii mu seetal ko ne moom jaamub yàlla la ak di tuub di dellu ci yàlla di ñaan yàlla di def istixaat ci moom di wane ak ñàkkam ci kanamu boroomam di wane ak toroxlu di wane ak wéeroom ci sun boroom ak yaakaar ko ak léppam jublu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu nag tuuti ci bëtëm kon xasida gi mi ngi noonu loolu moo ko tax bu ñu demee ci tarjumaan ji da nga fekk sëñ bi naan allahuma inna habibi wa xalili wa tabibi sahr ramadan araada al insiraaf anni yowma sulasaay ilayka maha anni lam amil minhu walam astaxni mu ne ko yow yàlla sama xarit bii sama soppe bii sama docteur bii di weeru koor moom de dafa bëgg a wëlbati ko bisub talaata man de yokkutuma yokkutuma ci moom doylu ma ci moom waaye maa ngi koy tàggatoo ci raaya bii muy xasida ak yaatal musaaraati maa ngi yaakaar nag tàggatoo gi may tàggat moom ci xasida ak yaatal musaaraati gii mu nekk yërmaande nekk sama nekk sama tonu addina ak alaxira kon yàlla nang ma ko nangul yow sax borom nang ma barkeeral ci xasida gii di yaatal musaaraati nang ko def lu kawe di ma ko waxee te na nga dëggal lépp lu ma yaakaar ci yow addina ak alaxira yow yàlla na nga ma seedal ne gërëm naa la gërëm naa sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmul muhajirin ak ansaar radiyallahu taala anhum kon weeru koor woowu ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent ndax sëñ ba nga ko tàmbalee altine jeexale ko talaata xasida gi nag matmuum bi mooy feeñal ak wane diggam ak weeru koor waaye wéetal yàlla fés na ci feeñ ci lool dellu ci yàlla delloo yàlla njukkal ñaan tagg yonent wi julli ci moom yooyu yëpp feeñ ci ak feeñal ak ubuuriyatoom feeñal nekk gim nekk di jaamu yàlla di liggéeyaa kon yonent bi waaye sëñ bi indi na ci diggam ak alxuraan bu dee diggam ak weeru koor yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwari li yazhat bi kaw nii abdal muhsin suwari li yazhat bi kaw wa yazhat bi anni tubtu min xawari ma nga ko wéyal dem ci suñu borom mi amul bokkaale yow kat doo dañu di gan gu tedd gu may bégal ci lu feeñ ak ci lu nëbbu yow weeru koor xarit bettee nga ma fii ci mbégte kon xasidi gi mu ngi noonu bu ñu demee ca mujjantalu xasida gi dañ fa fekk mu naan wàcc xal xalile saara sabi yasadu lii bi kaw ni al abda lil wahabi dil qadar def sama xarit bii di weeru koor wii mu di ma seereel waxtu wu ne jamono ju ne ci nekk gi ma nekk jaamub yàlla mi mayaakoon bi yàlla mi borom dogal bi yashhadu lii def fi'lul mudaari ad-dallatu ala wal istimraar kon gis nga mi ngi noonu kon feeñal na ci diggam ak weeru koor gis nga wax gi wax de allahumma inna habibi wa xalili te loolu boo demee ci tarjumaanu yaa xer fin indi woon na fa ñaar yooyu yow weeru koor sama sopp sama xarit waaye bi mu nee ba woor weeru koor ba weeru koor wi am lu mu def ci ñu moom ci njariñ yoo xam ni bu weesoo tiyaabu gi wér-géeg yooyu moo tax mun ne ko wa tabib yi yokk ci baatu tabib bi nga xam ne mooy doctoram bu dee tawxiid ji nag mi ngi meral boroom ne moom mooy al muhsinu suwar mi ngi melal boroomam ne boroomam mooy ki nga xam ne amul mbokkaale fil hamdi fil mulki wal hamdi mooy boroom nit ñi ak jinne yi baatub rab bu jëw na ci lu bari di wane ne suñ boroom moom moom mbindeef yépp mooy soppax ni ko ci ñoom di wane ne suñ boroom mooy alkarim mooy badi xusunu zil qadar fa xultu wal qalbu tayyibun minni wal qalbu minni tayyibun birdan an alkarim albadixi suni dil qadar nga xam ne alkarim mooy ki bari aw yiw lool njëriñam màgg lool alkarim mooy ki nga xam ne lépp moo ci gën a rafet moo ci gën suñu borom nag moomelal boo xam ne moom mooy alkarim yaa ayuha al insaanu maa garraka bi rabbika alkarim wa man kafara fa inna rabbi xaniyun karim kon mi ngi melal suñ boroom ci loolu ne suñ boroom mooy ki bari aw yiw bari ay may yiw yëpp ci loxoom la nekk moom mooy ki deppatoo yiw mooy ki nga xam ni suñ boroom dafa set ci mboolem wàññi wàññant yëpp ak gàkk-gàkk yëpp indi ci tur wi di albadix badixu suni mooy ki nga xam ni amul kem amul kuñ koy nuróoleel ci jëmm du ci melo du ci ay jëfam moo bind lépp te amul fum mu ko wala fu mu ko royee bind ko mooy càppaaculi bi nga xam ne kenn bokkaaliwut ak moom ci dara mooy borom dogal bi te nit ki dafa war a gëm ne jeexital moom suñu borom rek moo koy def lu dul suñ borom amoo jeexital ci dara lépp lu am rek ci xam-xamu suñ borom la amee ak nameelam ak kattanam waaye mi ngi melal boromam ci xasida gi ne mooy alxaafir mooy xafaar qad tubtu lil xaafiri l xafaari min awadi mooy melal boromam ne mooy jéggale bakkaar yi mooy ki yaatu ak njéggal mooy suturaal ayib yi mooy jéggal ci ngëneelam ak ci yërmandeem alxaafir mooy ki suturaal aji bakkaar ji kon mooy ki nga xamee ne nit day def bàkkaar mu suturaal ko bañ koo gàccaal xafaar mooy ki nga xam ne li muy suturaal way bokkaal yi way yi dafa bari kon alxafaar dafa ñëw ci ala was di faal te mooy kasirul maxfarati kam man wa nawaan melal boroom ne mooy alwahaab ilayka yaa xayra wahaabin madattu yaddi fil barri wal baxri saxir li dawil asari ku bari xéwal la bari maye wahaab faal la faal nag ci làkku arab lil mubaalaxa la yàlla mooy may lu ko ko soob ci jaamam yi ci ngëneelam yu mag yi mooy leen di muur ci ay xéwalam ci ay mayam kon mayaa kon la xasaayidu yëpp ci loxoom la ne sa samaa wal ard ci loxoom la nekk mooy may ku ko soob lu ko soob te ay mayam mi ngi toftaloo ci jaamam yi tadu jeex mu indi turu yàlla wi di alwaasix mooy waasixu sifaat wa nuut kooku mooy waasixul fadli wal ihsaan mooy borom tabga kon yëpp ci wéetal sunu borom la ko iddee waaye mu indi ci tur wi di almughni nga xam ne mooy womal ko ci jàmmam yi moom rek moo doyloo boppam walif leneen te lu dul moom aajo woo jëm ci moom mooy womal jaamam yi moo leen di jox xéewal moo leen yombalal seen mbir woomal gi muy woomal jaamam yi nag ñaari xaaj la benn bi mooy bi muy defal al awam te loolu xinan majaas yi la lim leen jox ci alal jox leen ko ci ay xéewalu zahir nii mu mel ni mooy noonam yooyu waaye am na xinaan gum jox alxawaas te loolu mooy alxinaan xaqiqi yi nga xam ne googu la sëñ bi yoroon wéeru ci boromam sukkandikoo ci boromam doyloo boroomam ba soxlaalul noonam yooyu ci lenn ci dara képp ko xam ne yàlla mooy alxani mooy muxni da nga wëkkirlu ci yàlla wéeru ci moom danga dellu ci yàlla ci lépp ci bépp mbir sëñ bi nag bi muy def yaatal bu saarati ci foofa la nekkoon mu indi ci ne wa ar lillah lahu xitaab wa arjo fawqa matlabati fawqa matlabati min juudihi naafihi almustahjil almatari gis nga naafix gi mu ci indi nga xam ne lépp luy jariñ lépp luy yiw addina ak ci moom la jugee bunt yiw yëpp ak buntu wërsëg yépp moom suñ borom moo ko yore te moo koy ubbil jaamam yi mu indi ci turu yàlla wi di al muhsin nga xam ne rot na ci sunna moom tur woowu nga xam ne day dellu ci ilal fadli wal inham wal juuri ngëneelu suñu borom yi ak xéwalam yi ak tawam gi ak taraangaam yi ak mayam yi ci loolu lay dellu mu indi ci tur yàlla wi di ar rasaax inni ilan naafihi rasaax muftaxirun walam akun li si wal muxni bi muftaxirin nga xam ne moo féetewoo wërsëgale jaamam yi wa ma min dabatin fi l ardi ila ala llahi risqaha wallahu yarsuqu man yashaa bi xayri hisaab ak yeneen tur al afis ñëw na ci ak yeneen tur kon xasida yaatal bu saaraat dafa fees dell ak wéetal suñ borom te sëñ bi nag wax naa ko sànq ci biir géej gi da cee def xeetu tawxiid yu am solo xeetu tawxiid yu tumuranke xeetu tawxiid yu yéeme te tawxiid yi sëñ bi def ci biir géej gi mi koy jëlee ci sekkare qul huwa allahu ahad sintu bi sirri qul huwa allahu ahad xasaida tawxidi inda man inda man jahad man de xanaa ci secret qul huwa allahu ahad ay xasiida yu wéetal yàlla yu ma nekk ci ñi nga xam ne dañuy déggal lillahi xad awzaltu inda al musbiri tawxiduhu al muxsi man lam yaxmuda wasaltu tawxidi radal buhuuri li muusilin li sadaqaatul huuri sun boroom sëñ bi sax wax na ne noon yi nasaraan yi maa ngi leen gañee ci xul huwa allahu ahad nafayta anin nasaara yaa ahad fanhazamu bi xul huwa allahu ahad nee na sax ci xul huwa allahu ahad laa rendee noon yi ci jaasi wala gobaru wéetal yàlla dabaxtuhum bi xul huwa allahu ahad fii xanjari tawxiidi abdan lil ahad ci xul huwa la ahad la sëñ Tuubaa doon xeexe yéefar yi ufin li xawmin sallatu allah al ahad xaataltuhum bi xul huwa allahu ahad sëñ bi nag ci géej gi defar na ci ñetti xeetu tawxiid sintu lahu xasaaid tawxiidi inda sawil kufuuri wal juhud man na xel naa sun borom xasiiday wéetal yàlla ba ma nekk ci ñuy wedd yàlla tey dingat bu njëkk ba mooy xaqiqatu tawxid ñaareel ba mooy artaxu tawxid ñetteel ba mooy afdalu tawxid te sëñ bi moo ko wax lillahi xuttu xablu inda al musrikin xaqiqatu tawxid fihi da sakin mhm. lillahi xuttu alhamda wa sukura maa xaqiqatu tawxid yi nga xam ne tawxid jooju tawxid mboolem gaa yu baax yëpp la ak mboolem saggu yu baax yëpp moo tax mu ne illahi xat xat awsaltu tawxida jamii ibaadi al xurri wa innahu sami lillahi xat wajaxtu tawxidi rusuli alayhim aska salaamay man yox jilo moo tax nee na la doxoon sama digganteeg bokkaale yàlla ak yàqu mooy wéetal suñu borom tursi anil israaki wal fasaadi tawxid rabbi taaril xasud arfaxu tawxid nag mooy maanaam jànqi wéetal yàlla yi nga xamee ne moom la jëmale ci suñ borom safaftu lillahi abkaaran muqallada wala yaraha siwa xayril wara xayril xayrul bara abada mooy jànqi tawxid yi yi sëñ bi naan lillahi xuttu arfaha tawxid raafiha xidmatin ilal waxid lillahi xuttu arfaha tawxid inda sawi taslisi wal juhud tawit yi gën a kawe jox naa ko suñu borom képp rek dong bi ma nekk ci ñuy wax ne yàlla jëtt la tey di ngat yooyu nag mooy ab kaara tawhid yi sëñ bi di wax sintu lahu ab kaara tawhid yi nafat li xayril hida wa kulliya shafat ab kaara tawhid yi indal musbidi na fay ne kulla musrikin lam yahmudi tawhid boobu di je di jànq sëñ bi mi ngi ko defar booba ba muy nekk ci géej gi nekk ci tubaab yi ci arfaxu tawhid nag teelu yàlla gi ak màggal gi ak fuglu yàlla gi ak musahada gi muy def loolu moo jur ci moom xaal ak maqaama ak mbànneex moo tax muy sos ab ab kaari googu ci boroomam allahu akbar mu ñëw nag ci euh, ba ca mujj te mooy afdalu tawhid sëñ bi def ko ci biir géej gi moom leneen la digga mag boroomam la looxam ne kenn ci teg du feeñ ci kenn lu dul ci moom sunu boroom moo tax xasiida gi di yaasal bu saaraat yi moom itam fees dell ak wéetal sunu boroom te xam ngeen ne sëñ bi tawxiid jim def ci xasiiday géej gi bim ñibbisee bokkut ak tawxiid jim def ci xasiiday ginnaaw géej gi fee moom arfaxu tawxiid xaqiqatu tawxiid afdalu tawxiid waaye bim ñibbisee nag xasiida yi ginnaaw géej gi mat moomu tawxiid ba ma mooy tawxiid bi mu doon jàngale lu njëkk muy dem ci géej gi te jàngale ko ci sawru sixaar jàngale ko ci sawru subaan jàngale ko ci mawaahibul xuddoos muy euh, tawxiid boobu nga xam ni moom moom la ñu xam ci téere yi ñu ko jàngale loolu la def ci xasiida yi ginnaaw géej gi kon xasiida yasal bu saaraati xasiida gu fees dell la ak tawxiid mi ngi naan sir saaqu fóole li rabbin laa sarika loo yow yaa ngi tàggatoo di dem demal ci sunu borom mi nga xam ne amul mbokkaale amul ndenn amul kuñ koy gamle du ci nguuram du ci cant sunu borom moom nga xam ne moom moom jinne moo moom nit ma nga naan ko yaasa samaawaati wal ardi munfarida maal hawaayi wa yaasal bahri wan nahari yow sunu borom yaay borom asamaan yi ak suuf si yaay càppaacoli bi yaa moom ngelaw li yaa moom géej gi yaa moom dex allahu akbar nga xam ne euh, da ciy wéetal yàlla da ciy feeñal tawxiid ci ne yàlla kenn la ci jëmmam yàlla kenn la ci jëmmam amul kuñ koy nuróoleel kenn la ci ay meloom kenn la ci jëfam amul kuñ koy bokkaaleel di wane ci biir xasida gi doyloo gi suñ borom doyloo wuli lu dul moom ak lu dul suñ borom num ku dul suñ borom rek aajoo nga suñ borom moom nag aajowoo googu muy aajowoo boromam mu di ko feeñal ci biir xasida gi ginnaaw bi mu xamee ne suñ borom rek moo doyloo boppam wëlif lu dul moom nga xam ne da ciy indi tawhid ju am solo te mooy at tawhidu shar'i yi mooy wane sag njaabu wane na yàlla képp rek moom ngay jaamu doo jaamu lu dul moom waaye ànd ak fas de yàlla kenn la ci jëmam yàlla kenn la ci meloom yàlla kenn la ci jëfam yàlla amul ndend amul bokkaale ci lu feeñ ak ci lu nëbb tawhid jooju mooy max naa laa ilaha illa allah ndax ba nga ne laa ilaha nga dàq geneen yàlla gudul yàlla nga dàq alhuyatu an xayrihi taala waaye saxal ko nag moom tawhid ji waaye wala ne tawhid yooyu nag fa muy feeñee mooy ci di ko jaam moom képp rek dong di wane ak uburitom kon baatub al allah bari ci xasida gi te mooy al bi xaq mooy ki ñuy jaamu ci jaamu gi doon dëgg ñàkk ngaa jaamu di lor kon xasida gi dafa fees dell ak tawhid nee na inal ilah wali sarmadan wa bihi anjo wa inni min xawfi idaaya bari baatub allah te mooy lafsul jalaala rot na ci xasida gi juróom-ñeenti yoon baatub yaa ilahi ñëw na ci ñetti yoon makantani fii duyoori yaa ilahi bila kadin wali kunta fii tuuba bila dararin xat kunta li fii duyoori yaa ilahi maha asamtani min xijal asmaani wal xarari axrajtani yaa ilahi min idaaya mahan bi ahli badrin ur lii kulla di batarin kon gis nga yooyu yëpp ci baatu euh, isbu saati googu di wane uluhiyatul laa te mooy sun boroom doyloo gim doyloo boppam wëlif leneen lu dul moom sëriñ bi ci biir xasida yaasal bu saaraat yi mi ngi saxal uluhitullahi googu waaye di reconnaître ubuditoom di wane aajowoo gim aajowoo jëm ci boromam loola sëñ bi dafa feeñal ci biir xasida gi fu baree bari mënees na cee tudd rek bayit yii mu wax di wane wane woo aajowoo gim aajowoo boromam mi ngi naan ilayka yaa xayra wahaabin madattu yaddi fil bari wal bahri sawi saxir li sawil asadi yow yàlla yow mi gën gi ma yaakoon talal naa sama loxo ci jéeri ji ak ci géej gi waaw man sax naka laay talalee sama loxo ci mbindéef te maa ngi ci noon yi nga xam ne xolub kenn ku ne ci ñoom moo man sax naka laay talalee sama loxo kenn ku dul yàlla ginnaaw bu ma doonee Abdullahi ginnaaw bu ma nekkee xadimu nabi yi man naka laay jéngee sax jëm ci àddina ginnaaw bi ma jaayee àddina ci fil usri wal yusri bu neexee ak bu bu yombee waaw man sax naka laay jàmbatee jëme ci ñi nga xam ne ñoom poñatub àddina ak taarub àddina moo leen nax ñi nga xam ne ñoom dañuy xëccoo dañuy wax ne yàlla ñett la moo tax inni ila naafihi rasaaq muftaxirun man daal dama aajowoo jëm ci yàlla mi aji jariñ di wër sagare moom képp rek dong la aajowoo jëm ci moom kurul moom awma ci yow soxla walam akun li siwal muxni bi muftaxiri kon mi ngi wane uluhiyatullaahi gi waaye mi ngi wane abutam ci wane ne moom boromam rek képp la aajowoo jëm ci moom laa astaki dura lil maxluqi mutadiyan min bahri kawni abdullahi bil fiqari du ma jàmbatal mu deex lor ginnaaw bi ma nekkee abdullahi kon gis nga mi ngi ci wane tawxid googu ci biir xasiida gi kon mi ngi ci wane ni mi ngi tuub wasat bi anni tubtu min xawarin mi ngi ci waree ubudité boobu ne aslamtu kulli lahu abdan lahu abada sama lépp jébbal naa ko yàlla di ab jaamam bi maa li ixtaara fii muksi wa fi safari kon tawxid jooju moom la feesee del la nee na inni li mawlaaya abidun xaadimun abada kon man inni li mawlaaya abdun xasru la man jaamu yàlla képp rekk dong laa tey liggéeyaa koon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inni la abduka fi sirin wa fi alani yaa man amaani fii badin fi hadri gis nga bi mu indee uluhiyatullahi gi reconnaître ko xam ne yàlla mooy yàlla moo mooy ki nga xam ne aajuwul jëm ci keneen ku dul moom te ku dul moom aaju moo jëm ci moom mooy kii war a jaamu léegi nag mu wane ak lompañam ak aajuwam jëm ci boromam waaye mi ngi wane xuburitam moo tax mu ne inni la abduka ci lu wér ci lu wóor mooy man sa jaam laa man sëñ Tuubaa fi sirrin ci lu fe ci lu wa fii alanin ak ci lu fës mhm. ndeysaan inni faqirun xaqirun laysa li amalun arjo bihi lfawsa min sawmin min saari yàlla man de ku aaju walaa jëm ci la man daal aw ba benn yaakaar aw ba benn jëf ju yaakaar kon xasiida gi xasiida ak tawxiid la tawxiidul uluhiya tawxiidul rububiya loolu yëpp feeñ na ci tudd na ci baatub rabb lu jege juróom ñaar yoon mhm. léeg-léeg sax nga gis bay mu indi ci ñaari yoon rabb yaa rabbi bil Mustafa suxali munaaya maxan yaa man kafaani dawal ilkaari wasaare inchaa rabbi alladi xad kaana li wa mahi rabban wa kuntu lahu abdan mahadura mahaddural mooy li ma doon wax léegi wane kenn yàlla gi waaye wane mbuuritam ak njaaboom ndeem soob na sama borom mi nga xam ne nekkal na ma te ànd ak man man nag ma nekk ak moom doon abdan bi dural kon xas yi de yaasal bu saaraat yi xasiida gu fees dell ak tawxiid la sëñ Tuubaa dunum gépp da koo jeexal ci tawxiid moom li mu wane mooy jaamu bi la tey liggéeyaa ko yonent bi li yàlla moom lépp mu jox ko di tagg bi sallallahu alayhi wa waaye musta jaawale yonent bi ak boroomam ku ci ne la yàlla ci yow mu jox la ko nee na damaa dem suñ boroom suñ boroom tegtal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi léegi ma wéet suñu boroom wéet boroom ba sama borom ne ma xanaa da ngaa fàtte ne am na ku ma la boole loon ma dem ci yonent bi ne ci moom ne ci moom ba yonent bi ne xanaa da na ku yow nee na ma def nag mbir bi léegi muy baagante diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon sëñ Tuubaa tawhiid ju sell ju wér wétal yàlla jox yàlla la moom nangu ak ubóoritoom ci la jeexal ak dundam kon nag lépp luy xeetoog shirk ak bokkaale sëñ Tuubaa moom kaccat ko ci ku ko defit yaa ko defal sa bopp waaye moom wax na ko jëf ko mu gis bind ko mu leer mu bàyyi ko fi defar ay xasir yoo xam ni xasiri tawhid la bind ay tiir yoo xam ne tawhid képp ko rek dong moo ko tax a jóg kon waaye ci biir xasida yaatal busaaraat yi sëñ bi nag ñëw na ci diggam ak alquran li yastajib bi ma faaqa zunoona bihi jaalta xalbi sarfil aaye wa lahoo sukkuuriya fii daari salaam yi wa fii Touba bi dikrin xakimin xad na faa darar yi waxuttali bin ka man xaarat lahu sulaha waxuttali laka bin Touba maxa suwari ma nga ñaan yàlla habli tilaawataha nang ma may may jàng alquran ursuqni alaawataha nang ma may bànneexub cafkak jàng alquran warsuqni kasfa fiha na nga may kas su ci alquran waltutul xawar yi kon nang ma may sax ak doylu ma doyloo ko wurib lu moom nga xam ne léegi-léegi mu mu taxbir alquran bil ayaati léegi-léegi mu taxbir ko ci biir xas bi dikril hakim léegi-léegi mu taxbir ko bil wal aay loolu yëpp wane diggam ak alxuraan bu dee ñaan gi ci biir xasiida gi xasiida gi dafa fees dell ak ñaan ndax dafa bokk ci al ubudiyatu ñaan ginnaaw bi nga xamee ne yàlla mooy alkarim mooy naafi mooy rasaax tur yëpp indi na ko ci mooy almuhsin moom moo aajowul ku dul moom te ku moom aajowoo nga jëm ci moom kon nga aajowoo jëm ci moom yëkkat sa aajo di ko jëmal ci moom sëñ bi indi ci duhaaw talab ak duhaawul ibaada ñaan yàlla ci gëm yàlla bokk ci tawhid la bokk ci wétal yàlla nga bokk ndax xam nga ne yàlla bi ngay ñaan ku am kattan la ku tabe la ku baax la moo tax saaltu baada awdi birda lahuma an laa yal an laa yulaqini sayar min alxarari wa an yusallimani min kulli mahlakatin bil mustafa man bi matihi wasalaati xari bihi talabtu min alqahaari mursalihi an raadali kula si jahrin aussi dajare yëpp ñaan la bu muy def mhm. mi ngi naan yaa bil Moustapha suxali mun naa yem an yàlla maa ngi lay ñaan ci barke ci nga tànn na nga ma màngal mboolem xéwal yëpp yow mi nga xam ne yaa amoon fegal zawil inkaari wa saxari kon xas jiite gu fees dell la ak ñaan gàttaay waxtu moo tax ñu di ko taxaj noonu waaye bi mu nee wa an yusallimani min kulli mahlakatin bil Mustafa man bi matti wasalaati xar yi samay tagg daal ak samay julli yonent bi moo ko yeyoo ñu gis nag bu tagg yonent bi ci biir xasida gi tagg yu am solo wax wal xabibu llati turja shafaatuhu li kulli hawlin min al ahwaali wa huwa alhabibu lladi turja safaatuhu bihi tawasaltu fii laylin wa fii saharin yonent bi daal mooy soppeeku suñu borom bi nga xam ne moom lañ yaakaaram moom lañ yaakaar ak raboom ci moom laay defee tawassul ci sama borom ci guddi yi ak ci fajar yi loolu danañ ci ñëw ci bayit yooyu sëñ bi indi te am lum ci def tam tam rafet lool wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu l usulu fi ajaabiha taxuri ci tagg yi la bokk walan tara min waliyin xayra muntarir bihi wala min aduwin xayri xayra musdajiri ka annahu wa huwa fardu min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi sumari wal mustafa al muntaqa al muxtaaru waasiti wa rufqati dahri ahlil xayri wal xabari yonent bi mooy al mustafa mooy al muntaqa mooy al muxtaar yëpp rek mooy ki yàlla tànn kon xasida gu fees dell la ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di julli ci yonent bi ci biir xasida gi salla alayhi bi taslimi muqaddimihi bil aali wa sahbi man yasko bihim umuri salla alayhi bi taslimin bi shiatihi man kawnuhu lii agnaani ani sumari wa salli anni bi taslimin ala ala sanadi wasirati man bi matti si wasalaati xar yi indi na ñaari yoon kon xasida gi tamit tàgg na ci yonent bi waaye julli na ci ci yonent bi sallallahu alayhi waaye sëñ bi am na nag um ci leeral nee na képp ko ma wax ne yow de da ngaa tubaranke ci biir nasaraan yi la ma lay tontu mooy yàlla mi alxasib doy na ma yàlla kat moo méngoo sama mbir sama mucc ci moom képp rek dong la ne te man dañ tool naa ci ragal samay noonu yonent bi al Mustafa di al Muntaxa al Muxtaar mooy sama wasila ma nga naan képp koo xam da ngaa njort ne man damaa laxas jëm ci feneen ku dul yàlla ci yoonu géej gii wala ma laxas jëm ci keneen ku dul yonent bi di al Mustafa al Muxtaar yal na yàlla julli ci moom ku jàpp loolee ba bay léwteeg moom ci jaas yi wala ci al almadaafi ci ay kanu boole nga ëmb ak mbañeel ak wor képp ku jot loolu fallaahu yaxduluhu yàlla da koy gàccaal nit ñi dañ lay wàcce gàcca bu ànd ak nax-nax ak kersa da lay rey te man kat wallaahu yanturu nii wal xalqu tatboo ni te du tee nag nit ñi dama topp waxtu wane ne jamono ju ne saa yàlla di ma dimbali waxtu wu ne ne ci jéeri jéeg ci géej ci géej gi may saa naf in bilaadrin may borom njariñ bu antoog lor kon xasiida gi dafa fees dell ci li ñuy wax al euh, ci wàllu balaaxaak bayaan ak badii ak arudat lépp sëñ bi indi na ci li ñuy wax tastiir ci ay bayit yoo xam ne ci burda la nekk xasida bu seyri moomu nga xam ne mooy abu abdullahi muhammad ibnu sahid ibnu amat assanhayi gis nga wa huwa alxabibu allati turja safaatuhu loolu ci xasida burda la de burdatu la nekk sëñ bi da koo def tastiir indi xab bu njëkk bi xab bu njëkk bi sëñ bi ko boppam bayru mooy huwa alxabibu allati turja safaatuhu li kulli hawlin min al ahwali muxtaxibi bu dafu xasida gu am solo la xasida gu am maanaa la bu sëyru dafa am feebar paralysie bu ko daloon mu defar xasida gi ngir def tawasul ci yonte bi ngir wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ci gént raay wetam googu mu wér xasida gi boroom xam-xam yi téwoo nañ ko lool sihaabu diin al xastalaani saraa na ko jalaalu diini noonu ibrahima bajur noonu ak boroom xam-xam yu bari sëñ bi nag jël bayir bu njëkk wi ne wa huwa al habibu lahi turja shafaatuhu sëñ bi nag yokk ci bihi tawasaltu fii laylin wa fii sahari kon tafsir la def fii wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al asulu fi ajaamiha bu sëyru taj mi la wax sëñ moom def ko taxawri ngir ra'aye gi xasida gi nekk walan tara min waliyin xayri muntasirin bihi wala min aduwin xayra munqatimi loolu la bu sëyru def sëñ bi ñëw ne walan tara min waliyin xayra muntasirin bihi wala min aduwin xayra xayra xayra musdajiri ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fii askarin hina talqaahu fi asami sëñ bi ñëw def ko tafsir ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fii askarin hina talqaahu wa fii sumari kon xasida gi dafa rafet ci tafsir googu yi sëñ bi indil ci sëñ bi rafet xasida gi rafet lool ci wàllu jinaas gi ci nekk jinaasu xayru taam ñëw na ci ci yaasal busaaraati bil aaya wa suwari li yasxat bi kaw nii abdal muhsin suwari mutaabaxa am na ci sëñ bi di tudd muksi ak safar yi indi al usru ak yusru al badu ak al adar tudd guddi gi tudd waxtu njëw njël waaye xasiida gi nag ci wàllu was da ci am solo lool sëñ bi da ciy def wasfu daqiiq bu yéeme ci noonam yi surtout tubaab yi ma nga naan mu ngi ñaan suñu borom tàggatal ko kullati jaxdin aussi daja te mooy tubaab yi ñu nga xam ne daal dañuy dingat te dañoo xat ñu xat bakkan lañ doon al joxdu nag mooy al inkaar ma al ilmi xam nañ dëgg ba noppi bañ dëgg gi warul lii ku la batari gis nga ni muy melalee ñu mu àndal mooy ñi nga xam dañuy ngan nganlu di rëy al kibru wa taali ani naas mu melal leen ñoom mooy ahlul kufri wal xiyari ñooy ñi wedd yàlla ñooy ñi gëlëm wa saxir li sawel asar nag ma tàggatal yi nga xam ne dañoo ngan ngan di rëy rëylu ci kaw nit ñi ñi ngi melal noonu ni ñoom ñu kat kenn ku nekk ñoom tubaab yi sa xol moo gën a wow doj mi ngi melal tubaab bi ne ñoom dawit tanaasu ñoom dañuy xëccoo di bii seen biir waaye dañuy wax ne yàlla ñett ñoom ñooy borom perte yi ma ngi mel tubaab bi ci biir xasida gi de hinda nasaara sawil asiyaafi wa sumari gattaayu waxtu moo tax may taxañ lu bari yaa man kafaani dawit inkaari wa saxari nga xam ne ñoom ñëpp mi ngi leen di mel ne ñoom daa xiq danañ wasaa euh, kon gis nga ni mu melal melalee tubaab bi fii ci biir xasida gi melal wu yéeme waaye sëñ bi nag mi ngi ciy tudd nag ay xéewal yi ko sun defal mu ci sant yow yàlla génnee nga ma ci sama noon yi mboolem seen ci barkeb ahlu badrin hmm. yow yàlla musul nga ma min buusa o min xatarin xat xuttani birida li saalin ma asam xasamtani rabbi min buusa o min xatarin li yastajab ta bi ma faqa zunooni bii yàlla wuyu nga ma ci loo xam ne kawe na njort jaxanta xal bi def nga sama xol bi muy sarfal aaya wa suyeer ndab bi alquran man raama hadma jana janaabi an hida sama nii saraftoo xam bil muqsin indaal mudari kon yooyu yëpp da koy wax ci anamuk sant suñu borom waaye ci biir xasida sëñ bi def ci enseignement bu am solo ña mbooleem njàngaleem yëpp sëñ Tuubaa dëxëñ ko ci benn bayit waaye jaaree ko ci taxabire ko ci formule ñaan waaye jàngaleem sëñ Tuubaa yëpp mi ngi ci bayit woowu waqtub kamaliya fi ilmin wa fi amalin wa fi adabi wa fi taaddubi daa o bi ma safari yàlla da ma bind ma am xam-xam bu mat ak jëfe gu mat ak teggin yu mat njàngale Sëriñ Tuubaa yëpp mooy alxilmu naafix wal amalu saalix wal adabul mardi kon mu taabir ko fii nag ci wàllu ñaan waaye Sëriñ Tuubaa li woote mooy xam-xam jëfe xam-xam ànd teggin waaye sëñ bi mi ngi ñaan ci biir xasida yi Yaatal Wasaare nag na dellusiwaat nag ci tukkeem bii dellusiwaat Touba ak Daaru Salaam za aw bin bi safari moo tax daaru salaam ak tubaa sëñ bi tudd na ko ci biir xasida gi moom itam lahoo sukkooriya fii daari salaam yi wa fii tubaa bi dikrin akimin xad na faa darar yi ku ñëw ci mbaar mii fan yii buntu ko sëñ Fàllu gis lañ fay wàcc ci alxuraan di ko santalee sëriñ tubaa suñ borom da xam ne kon li moo kon suñ borom def na ko su màggalu Daaru Salaam ñëwee nga gis kaamil dañ fay jàng nga xam ne kon la foofu sukkooriyee fii daari salaam yoo fii Touba bi dikk na ak kii bi xam na faa dara di moom itam lu jëmm la waaye mu di ko tuddaat ci biir xasiida gi ñaari dëkk yooyu mu tudd muy Touba ak Daaru Salaam mu waxee ko waxee wu am solo nee na wa xuttali minka man xaada lahu sulaa wa xutti laka min tuubaa maxa suwari kon gis nga ni mu ko ci indee makkantani fii duyóor yaa ilaahi bila kaddin wali kunta fii tuubaa bila darari xat kuntali fii duyóor yaa ilaahi maa xasamtani min xil ismaani wal xarari kon xasida gi mi ngi noonu xasiida ak yaatal bu saaraat yi xasiida la gu fees dell ak wéetal suñu boroom ak ñaan ak wane ubudiyatam tagg yonent bi kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu boroom wakkilu ci suñu borom doyloo ko yaakaar ko euh, ba noppi nag ànd ak di ko jaan ak di ko delloo njakkal njukkal ak di ko sant kon xasiida ak yaatal bu saaraat mi ci xasida yi weeru koor yi la sëñ bi defar ko ngir tàggatoo ak weeru koor yi waaye muy xasida gu rafet ci wàllu arab gis nga tastir bi ci sëñ bi indi jinaasatu xayru taam musaabaxa bi ci am ak ni mu rafetee am na ci loolu gàttaay waxtu bi moo tax mënuñu ca àgg ndax la ñuy joxoon ci waxtu dafa mel ni sax ëpp nañ ko kon noo ngi doog ngànt di jégglu di ñaan yàlla nangul ko lépp luñ fi wax yàlla na ko suñu borom nangu te defal ñu ko ngërëmal sëñ Tuubaa ñoo ngi dog gànt di jéggalu salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëriñ Basirou ci waxtaan waam solo wi te matale eh, ñoo ngi lay santaat baax di eh, rafetlu jotaay bi ak ko tërale ak tomb yu am solo yi nga xam ne tudd na ko euh, xam naa ci fàttali rek comme ni mu ko waxee woon rek wax nañu xasida gi fi ko sëriñ bi taalifee tu mooy ci tukki bi dem na yi mu nekk euh, mu taalif ko ci ñetteelu atam ci ñetteelu kooram ñetteelu koor gi am ci tukki bi wax tamit jamono yi mu koor googu mi ngi weer mi ngi feeñoon ci bisub altene mu taalif xasida ak yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi bi koor gi di jeex tombeek bisub talaata mu tëjee ko mu taalifaat xasida ak yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwari tëjee ko koor googu ngir wane ne ganam gu màgg gu tedd mi ngi tàggoo ànd ak koor gu mett nga gam ko woor nga xam ne ni mu ko waxee ne jiirub koor gi yëpp lu ñuy togg sëriñ bi mosu ko fa ca eh, ci tukki bi ci koor googu lu dul ne da daan dundal sunna si ne bu koor bu dog jotee mu fexe ba jël ay xob tucc tuccal ko ba dara jàll ci eh, ak buleem wane ne dog na ngir loolu tamit day ci wane dundal sunna ak fonkum fonkoon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak fonkam njàngaleem ngir xam nañ ne li ñu tuddee wisaal moom loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak la bokk mooy woor bañ a dog bu dog jotee ku wooroon boo bëggee tuyaaba ja gën a bari ak loo bëgg-bëgg lu baax euh, lañ santaane mooy nga nga dog moom xam nañ ne daanaka amoon na ngànt waaye teewut bëggam sunna ak ak njàngaleem ak liggéeyal gim daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te daawul nangu dara gàllankoor ko moo tax lu metti metti rek dana fexe ba sàmmante ak sunna sa fa sàmmanteeg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale muy koor gu metti euh, sëriñ bi tamit sëriñ Basiir Touré ñëw na ci biir xasida gi ci lim làmboo euh, muy tawxiid daa mel ni sax xasida gi daanaka mën a mën na tuddeew xasida tawxiid ngir ne lim ci wax ci euh, lu laaju ci tawxiid ak sant yàlla ak euh, tudd melokaanu suñu borom yi rawatina ci tawxiid uluhiyya ak tawxiidu rububiyya daanaka moo ma dal xasida gi yeneen yi nga xam ne dañ ko tudd tamit boo xool tamit yëpp day delluwaat ci tawxiid wéetal yàlla gi mooy sant yàlla gi loolu lépp tawxiid tawxiidu sëriñ bi lay wane ak tuubal yàlla gi muy tuubal yàlla euh, ci baat yi mu waxe waxee wàcce boppam euh, yooyu yëpp day wane tawxiid ak wet wàkkilu gum wàkkiloon ci yàlla delloo gum daan dellu ci moom te lool moo ko may euh, ndamam yi nga xam ne moom la am ba euh, sant santaat ba sant boromam ci defal gi mu ko defal ndam ci kaw noonam yooyu yi nga xam ne ñoo ko jële woon fii yóbbu ko ci barab boobu ak coono yam fa daj ak la li ko suñu borom fayee ci ay may ci ay ba tax muy sant borom ci bis bii nga xam ne moom lay moom lay wootee Serigne Bassirou Touré tamit xam ne ne euh, li mu wax ci taw yi tamit wax ne ne xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi taalif ci géej gi euh, te yaasal bu saaraat yi gi nga xam ne moom la doon jàngat wax ne ne tamit euh, li muy sëriñ bi taw gi muy jàngale ci biir ci biir géej gi ginnaaw wuute nag tawxiid yi nga xam ne moom la jàngale ci ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw géej gi loolu tamit day mel ni euh, dajee junj tawxiid yi nga xam ne euh, moom mooy tawxiidu takallum comme ni ko sëriñ bi waxee ci masaalik ak tawxiidu taaruf te mooy lu ñu tuddee tawxiid mooy ilmul kalaam ak yi nga xam ne mooy lu ñu tuddee tawxiidul mooy dëgg-dëgg tasawuf dëgg-dëgg tasawuf mooy mooy mooy lu ñu tuddee tawxiidul irfaani mooy wéetal yàlla gu ma sëkk bu sellal yàlla ci lépp euh, loo xam ne yellut ci moom ñëw na tamit ci xasida gi tamit làmboo gi mu làmboo ay ñaan ak bayit yi nga xam ne moo koy firndeel ci biir xasida gi euh, sëriñ bi di ci ñaan borom te lépp tamit day delluwaat ci taw yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne daanaka xasida gi tawxiid ji moo ci moo ci moo ci gën a am doole euh, ñëwaat na tamit ci